julli ci yonenteem ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yal na nu yàlla boole jéggal suñu diggante ak moom te dox ci suñuy diggante ak suñuy moroomi jaam tomb bi ñuy fas yéene fàttalante tey tomb la boo xam ne lii mag ña daan léebu ci ku yàkkamti di wax ne boroom ndéego ku ko jëkk a yeewu te bëgg a ndéego tax laa yeewu faw nga tëddaat tomb la bopp lu waaye teel teel a xëy ndax aw askanam moo ko yóbbu moo ko teel a yee mu jóg faw mu taxaw xaar ko bu bëggee àgg ci jàmm su dee koo xam ne it ala la ko yégal yëg bu gaaw su fa fas yéene yàgg ak alal ji rek faw it tomb bi ñu fas yéene fàttalante ànd ak moom wala mu jiitu ko fa wala mu dab ko kon li ci wolof wax mooy li wér boroom ndéego moom ku ko jëkk yawwu it bu la ndég ndéego taxee teel a yawwu it faw da nga ko xaar moo xam waxtu wam ko war a joxe ak ñam koy jox yàlla na ko yàlla déggloo muy tomb xam-xam xam-xam bokk yi ku bëgg a jaamu yàlla jaamu yàlla gu yàlla tudde ak jaamu yàlla faw nga jëflante xam-xam waaye ku bëgg a dund it ci àdduna dund kese-kese te di dajeeg lam bëgg lépp ci jàmm mu lew ko faw it mu jëflante ak ki ñuy wax xam-xam xam-xam moomu nag yàlla subhanahu wa taala wax na ci ak noonu nee na ci alquranul karim ci warab yu wuute waaye bokk na ci rek warab yooyu ma jot a junj fi muy waxee ne yéen ñi gëm yàlla ñépp na ngeen fab seen tànk teg ko ci yoon wi jëm ci taqwallah taqwallah nag yoon wa cay wan la cay wan nit yoon wam cay jaar ba mën caa teg tànkam xam-xam lay doon nee na ku teg tànkam ci taqwallah su ko teggiwut yàlla dana ko wan bu demee ba ca kanam bu yoon yi defee yaar wi jëm dajoor wi jëm càm mooy dana xam wam cay jël wan la waaye nee na it ku teg tànkam loolu mi ngi sootul anfal waaye nee na it ku teg tànkam ci taqwallah ba mu yàgg ba yàgg yàlla dana ko xamal lu mu xamulul kenn ndax yàlla moo xam lépp ku xam moo la xamal laaj nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama jataay yi gën ci jataay yi ban la waaye tudd na ca yat nee na jataay yi gën ci jataay yi moo jataay boo xam ne boo fa toogee ak kañ fay fekk waxuma la ngay toog waaye di ko xool nii képp daf lay fàttali subhanahu wa taala daf lay fàttali yàlla doonte yàlla du ku ñuy fàtte waxin la waaye soo ko nee tegg ba daal sam xel danaan lapp ci yàlla waaye su waxee nga jàng njàng bind bu yees peq loolu nag xam-xam lay doon kon nee na it bu noppiwut buy wéy di wax ba yàgg sa xel mépp ci àllaaxira lay nekk te ku am xeram nekk ci àllaaxira àdduna du ko mënal dara ndax du jàppee àdduna dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne waxuma la wuti xam-xam ba am ko de waaye kum tax a jóg rek kooku teg na tànkam ci yoon woo xam ne bu ko wàccut dana ko dugal aljanna te jullit yi liñ gën a wut mooy ngërëmul yàlla te ngërëmul yàlla la ci gën a féete kaw mooy dugg aljanna bu ëllëgee bi xayri xisaab yàlla ñu ko yàlla defal bi ñu koy tënk daal kon dañu daan xam-xam mooy dëgg-dëgg teraanga bu dee nit day dox guddi soxlab làmpit xam-xam mooy làmp bii leeral la nit ki fi muy war a jaar ak fu mu dul jaar loolu sax am na ku ko misaaloon ci daamar yi ñuy war kooku dafa am ku ko tàggu yi dox fas yéene gont mu ne ko fanaanal mu ne lu tax mu ne ko lu tax doo fanaan mu ne ko sama yitte mat na ci dëkk bi te yor naa daaba joo daamar joo xam ne sawar na lool mu ne ko waaye fii ba jant bi soo mënoo àgg fa nga jëm mu ne ko yor naa làmp yi leer mu ne ko ay làmp de baax na waaye bu dee daamar de kenn waru koo taal di gënub dëkk da ngay dox ci bëccëg bi kay ba jant bi so te àggagoo nga taal ko mu gunge la àggale la kon làmp am na solo lool ci ko bëgg a jox jox dugg dana ko wan aw yoon waaye bu dee dundug nit nag xam-xam la ñuy tuddee ab làmp bokk yi daamar moomu ñu wax mën naa am paan bu nekk di ko sooxaale gisees na ba tàyyi tànk ba am sikk am ayib ñu ne ko gaawantul rek àgg ci kay defar tànk yi kon teewu ko dem ñu ne ndox mi day senn ñu ne li feeg mi ngi dox moom ndox mi du senn moom xanaa bu taxawee fexeel ba àgg du taxaw mu tëë tàkk ñu ne teg leen ma loxo waaye nag li ñuy wax moteur moteur moom su ko paanee fa mu nekk lay taxaw fa lañ koy fekk lonk ko te buñ ko xasee ba lonk ku ñuy dab la waaye dootu dab kenn moom dañ koy romb kuy dox sax mën na ko romb ndax léeg-léeg mu àgg ci yoon ay naqari naqari yoo xam ne kuy dox ak tànkam mën na koo romb jàll paan bi gën a rëy ci nit nag kuy dund bu bëggee dund diineem te amul xam-xam paan dikkal na ko su bëggee jaxasoog adduna di leen wax ñuy déglu it bu amut xam-xam paan dikkal na ko daa war a dem ñu defaral ko moteur bi jamono ba mu yëgee ne paan na moom daa war a noppi moom su dee ko daan wax la su daan kuy jëf mu ne tekk te dem wuti xam-xam ba am ko moo tax sëñ bu mag bi wax ne ku xam-xam raw ci dundam su bëggee jaamu yàlla ay ca yoon waa ngi noonu waaye su demee ba fa ñuy fayee ña doon jaamu yàlla dana xam ne tegutoon tànkam fa mu ko war a teg ndax laytaayu ko woon tegutoon tànkam ci xam-xam man faatahu al ilmu maa taati fa sawfa yaalamu la dal mamaati daal ne nag lépp lu nit di def moo xam muy ak jaamu yàlla diggante nit ki ak boroomam daal wala digganteem ak moroomi jaamam ñi daal su ca xam-xam jiituwut àndut ak moom gungewu ko jëfam joojee lu mu bari bari day mel ne pënd pënd bu ñuy jëri gerte gerte gi day day toog fii moom mu dem fële ndax daa woyof te pënd pënd suuf kuy tabax doywu ko dara kuy sëkk doywu ko dara waxantuma ak kuy mool kon li ko waral mooy dëgërut yàlla na yàlla musal ci suñuy jëf di mujj ci pënd bu buñ jëri buñ doxee ba jamono nag àgg ci ñu ne léegi lu mën a doon rawatina lu jëm ci ab jaamu yàlla walla sëñ bi santaane ñu ne sëriñ bi kenn du ko xamee ci ay téere loolu siiw na lool ba mujj mel ne lu wér la te loolu wérut ba muy niru lu wér mooy ba sëriñ bi waxagutoon wala gisaguñu woon lu mu bind sëriñ bi moo wax ne loolu ku la koy wax mi ngi lay tayalloo ci wuti xam-xam te képp ku leen tayalloo ci wuti xam-xam waxuma laa mu di ko tere sooy wuti xalifab seytaane ci kaw suuf boo ko rombee dootoo ko gis nee na ku leen tayalloo ci wuti xam-xam it lim leen di tere su ngeen ko ca toppee fuy fii rek la leen di jëme wa man nahakum an taallumi fa huwa xalifatu lain al mujrimi fenn fa mu ne fa nahyuhu ila dalal yantami kon ci xam-xam la nit di amee ak leer am na feneen fu sëñ bu mag bi di waxee ci jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xasida googu mi ngi tudd mi ngi ko tënki asxaabul jannati ilayka yaa xayril bariyati salaam ma ngi cee wax ba na banaan ko anta alladi axrajana min alzalaam bika li nuuri man xabaaka bilkalaam yow mii di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ñu jëlee ci ak le ak lëndëm guñ nekkoon lëndëmu jullit nag mooy pas-pas bu woyof wala ñàkka teg tànkam ci siraatal mustaqim rawat na ci santaane yi ak ci tere yi ci lay waxe ba naan nawaytu shukrahu nawaytu shukrahu alayka kulla aam wa kulla shahrin walkitaabu lii di aam foofu sëñ bi tudd na fi ab téere wan na ko ci ne lëndëm googu nga ñu génne ci kattanu suñu borom ak coobareem ndax yàlla moo waxoon ci alquran ne qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubin yahdi bihi llahu man ittabaca ridwanahu subula salaami wa yuxrijahum min adulumaati ila nuuri bi idnihi wa yahdihim ila siraati almustaqim min allahi kitaab qad jaakum min allahi kitaab mooy alquran nuur mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ko suñ tubaab waaye nga xam ne sëriñ bi nee na bu ma ci jotee kat ba di ko mën a xam ne génn nañu ci lëndam dugal ñu ci leer ci téere boobu ci laa ko jaar moom sallallahu alayhi wa sallam bi mu yoroon teg te ne nawaytu shukrahu alayka bilqilaam wa gayriha astagfirullah nawaytu shukrahu alayka biqilaam wa gayriha yaa daa jawaamici lkalaam kon sëriñ bi daqut foofu fenn fu nit di jaare ci ay téere war a mën a xam yàlla war a mën a xam dara ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye rawatina moom mi nga xam dañ naan la moo bindoon lii bàyyi ko fi yàlla nañu ko yàlla fayal sëriñ Sidi Muxtaar yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal te wéral ko nee na ci wenn waxtaanam ku yar wut du yor dara ab yar mooy xam-xam ku amuli teggin du teggi dara ay teggin mooy jëfe xam-xam ay teggin mooy jëfe xam-xam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa wax ne moom ci boppam sallallahu alayhi wa sallam bu xam-xam de bu xam-xam de ab dëkk bu ñu koy wéral dëkk bu nit xam xam ne ab dëkk bu dee dëkkub jullit dana am jàkka su magee ba mag am jumaa wala ay jumaa am ay jàngukaay yi wax nit ñi nu ñuy def ci jumaa yi ak jàkka yi am lu mel ne ab ja am ay liggéeyukaay yooyu yëpp boo ko boolee muy lu ci nekk xam-xam moo koy wammat xam-xam mooy jàngale métier mooy jàngale technique mooy jàngale lu mën a doon te xam-xam rek moo mën a tax nit ki teg tànkam fa ko yonent bi tegoon ak saxaabaam ya ba xëy raw ñu bari ni ko Cheikhul Xadim defe kon ana maddatul ilm moom la sëñ bu mag bi wax ci benn téere di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wane ay jikkoom ak i melakaanam muqaddamatul amdaax madinatu ilmin murtajan minnatun lana jariun wa munjin min dunubin wa min zulmi foofu it xam nañ fa ne xam-xam kon nit mënu koo ñàkk ku yaruwut du yor dara ku amul xam-xam toll nañ ci jamono ji foo xam ne li ñu yóbbu di ko weccee ci jàbbu mag ba ca adduna bi fu mu mën a doon mooy soo fa yóbbuwul xam-xam doo fa jëlee dara ndax faw nga yóbbu fa lu ñu soxla ku dem ci tedd da nga fa yóbbu lu ñu soxla doo fa mën a jëlee dara li ñuy soxla bu dul marchandise mañ yor it da nga yor xaalis xaalis moo leen fa tax a toog waaye xaalis tekkeetul dara ci adduna bi léegi xam-xam la ñuy soxla ndax xam-xam ci lañ daa ba defar xaalis kon ku yorewut du yor dara mooy xam-xam ku ko amul mënta am dara ndax moo lay wan ni ngay def ba mën a teggi fu ay laxa taxas nekk wala ay dégg wala luy daggaate Muhammad yàlla na ko yàlla fay ci tënk bu gàtt boobu ak ji- jinaas bu rafet boobu moom la naru ganaar ba ñëwoon ci genn kër kilifa saa bu bëggee jàll rek ñu ne ko xaaral tuuti ku nekk di ko romb ku sol lu nekk ku takk lu ne gannaaw soliwut takkuwut takkut mu jël xalimaam ak kayit génn ci génn ci yibaam kayit laaj ñu abal ko daa mu sadd ca aw way woo xam ne yaram yépp a daw dafa bind ne haza zamanu zamaanul maali ak mbu mu jot wa man yelij nahja ilmin qiila kii lu ko jot nee na toll nañ jamono joo xam ne kat ni ma ko gisee nii jataay bi wan ma ko mooy jamono la jot boo yorut alal solo mbub muy sëmbërtal di law lawi doo tekki dara kuy waxtaane xam-xam naan fii laa ko teg ak faa ñu ne kii daa dof kii day tàddal nit ñi jamono ji xaalis la laaj te bokk yi niñ koy saat fàttali léeg-léeg xaalis bari nañu ko yor ñoo xam ne xamuñu lu ñu koy doyee dañ koy wut rek ni ñu ko nit ñi wut rek waaye xamuñu lu ñu koy doyee bu ñu ko amee moo tax sëñ bu mag bi ne ñoo ñëlee romb di jàll eh, boo yoree tuuti as xam-xam bu mu la metti ndax fa tëkkale amee njariñ suñu fa demee da nga jiitu ñu bari yow mi amus xam-xam waxuma laab xam-xam ndax danañ àgg foofu ba ci jamono ji rek léeg-léeg ñu ne ku bëgg liggéey dikkal ñëpp wala wali dem waaye dañ naan la loo jàng nga naa wax dëgg yàlla mën naa lépp de mën naa lépp moom boo ko déggee mooy ko amul métier amul xam-xam ci dara loo ma jox ma liggéey ko kooku day daan dooleem waaye day fekk lam nar daan dooleem xam-xam taxawal ko ba mu taxaw ba man ba mu mën caa am dara moo tax mu ne ku amus xam-xam jàll ci bunt bu ñuy xat-xatloo di jàllalee ñi di bàyyi ñe ba mu la naqar yow mi amus xam-xam waxuma la yow mi am xam-xam ndax dañ toll foofu kay ne ca kaw li kaw dana àgg foofu duñ natt ba xam ku ko jur kuy baayam wala kuy yaayam waaye ku fi raw la ñuy wax mooy fi mu waxee ci téeréen bi ñuy wax nahju qadaa ilxaaj waalam bi anna ma tafawuta alwara bilcilmi waddiini yakunu fasbira wa bihima yafdulu man qad fadala la bintisaabihi liman qad ictala min jihati alansaabi ummin wa abi fa fihima ijtahid maa taaddubi loolu nag ku ne mën na koo jël waaye am na fu mu joxeñe baaraam wane ne kii tuddoo ab murit moom te sëñ Abdou Mbakke nee na woon ku ñuy wooye murit lu silsila ba gudd gudd ci seexul xadim lay yam mënu koo weesu jëm fenn koo xam ne bu ànd ku àndagut ak moom doona tuddagoo ko boo àndatut ak moom doona too ko kon tur woowee lu am solo la ci ñi ànd ak moom am na fu muy waxe ci al majmuatu sagira عليك يا مريد بالتعلم فإنه مطهر من ظلم yow murid bi dénk naa la ganaa la digal naa la nga dem wuti xam-xam ndax xam-xam kat bu mu mën di doon bu adduna lëndëmee tëriis ba ñu bari xamatuñu fu ñu teg seen tànk yow yor nga làmp bu leer yow doo bokk ci ñi lëndëm di sonal yow loolu ndigal la waaye wax na ci ne ci moo waxe Munawwir Sudur it ne واعلم بأن العلم والأعمال واعلم بأن العلم والأعمال كأدب تكسبك الكمال العلم mooy xam-xam kon faw ci murit yi ay woroomi xam-xam na ci gàññ doonte baatu murit de daa wees na ko jëfandikoo lu jiitu Sëñ Tuubaa waaye bu gënee jege xam-xam al ilm wal amal amal ci làmmiñu léegi moom la ñuy wax business mooy commerce mooy entrepreneuriat mooy lépp lu yëngu rek moo tudd amal waaye nag baatub xam-xam la jiital lu nit ci dugg te jiitu la ci xam-xam du yàgg ka adabin ñetteel ba mooy sédd nit ñi seen cër ku ne nga jox ko wàllam xam ne yàlla bind dara cig neen maa xalaqna alsamaa wal arda wa ma baynahuma baatila nee na su boobaa ngay soog a dekk nit ku mat sëkk waaye su fekkee alali kese kese nga yor di ko xëllantoo ak nit ñi di leen ko won di leen ko xoymat buñ la bàyyeeg sa alal da nga da nga bëgg boroom xam-xam bu la ko téel soo amee boroom xam-xam bu la ko téel it te séddoo nit ñi seen cër it dootoo am koo jëflanteel ndax ku jëflante yow benn yoon lay doon dutu ñaar ndax lam ciy dégg du ko neex kon xam-xam nga noonu du lu ñuy sabontal du lu ñuy fooyee istismar yu alal yu bari yi ñuy fab di ko def ci lu nekk ak a neexoon xam-xam jiitu ca maanaam investir ci xam-xam bokk yi am na gag bu amoon fii ci Touba rek bu yàggutoo dafa am koo xam ne dañ ko yóbbu daa am ko yóbbu ci ak kër di ko won kër gi ni mu rafete ak ni mu yaatoo ak ni ñu ko liggéeyee wana wan ba àggal kilifa diine la de wala kërub diine la waaja ne ko dëgg-dëgg kër gi de moom moo dàq sama kër fuuf ñun ñi ñëpp moo moo gën suñu kër gën koo valeur waaye ana jàkka ja sikkim dem ci dënn loolu mooy lan mooy ba muy laata tabax kër googe su jëlul alal ju bare bari ci lañ tabaxee kër ga jàngaloo ji ko ñam koy jàngaloo su boobaa su leen defee ay architecte bu leen tabaxloo kër gu mel noone ca foofee mu nekk waxuma la kooka dafa defaale jàkka waaye la kër ga laaj lépp sax ba ci fu ñuy yeew ganaari sëriñ bi sax daf ko fay dal ak fu ñuy yeew fasu sëriñ bi ak fu ñuy teg daal kon foofa ab paan am na fa mooy tabax lu kër gu tal noonu te amul jàkk loolu ñàkk xam-xam moo koy waral mbokk kon xam-xam bu jiitoo ci tabax fett sax du ko def day dëgër kay loo ca bëgg a teg teg ko ca waaye su jiitu wut ah ak daanoom weesoogut saa su nekk ñu dégg fi tabax boo xam ne day toog ab diir daanu sa kaw ña ko doon tabax mara dem si walla mu doog ay ñaari at ñetti at daanu ñu tàmbaliwaat alal yàqu yal noonu yàlla musal ci ñàkk xam-xam wuti xam-xam ba am ko nag su bukkut ak dem aljanna naag defar adduna ba mu jag jaamu yàlla jaamu yàlla bu jag yii ay farata la nit mënu koo ñàkk xam ba di ko jëfe waaye fi yàlla teg boroom xam-xam jar na jéem caa bokk yàlla nee na ñi ko gëm ñoom ñépp bu ñuy lim ñi gën ci kaw suuf ña gëm ñoo jiitu ñoo jiitu waaye ña gëm ñépp nag bu ñuy lim ña ca am xam-xam ñoo ñooy jiitu bu ñu leen jiitalee ak bu ñu leen jiitalut moo ci yam waaye ñoom la yàlla jiital yarfau llahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat waaye bi yàlla di wax lenn ci lu ñu mën a xamee kim doon loolu mu ngi ci sóotu ali imran bi may jëm si nii bee mu ngi ci sóotul jidaal wala sóotul weneen tur yi ñu koy jox foofu lay waxee ne yàlla xam na ni moom mooy yàlla ba mu ko xamee it malaayika yépp mën nañ koo seere waaye kum ca teg waroom xam-xam yi yàlla ay malaayikaam ak i waroomi xam-xam shahida allahu annahu la ilaha illa hu walmalaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it wax na ne su fi nit bàyyi ko lu ay sémbam rëy rëy lu mu baax a baax bis bu ñu nee faatu na moom yépp mën naa taxaw dem ci yeneen i loxo ba mu des ba muy lim lim na ci xam lu ñu jariñoo lu mu fi bàyyi te xam-xam di ko wëgg ida maata ibnu aadama inqata amalu illa min thalath xam-xam la ca jëkk a tudd xam-xam bu mu fi bàyyi ñu di ko jariñoo lim na ca it lu nit ñi jariñoo lim na ca doom ji baax ju mu fi bàyyi waaye doom ji baax jooju mu fi bàyyi mu di ko ñaanal it day fekk mu jàngal ko ba mu am xam-xam ba xam luy way jur ak teggi ni ñaan yàlla yàlla na nu yàlla defal dégg ak tub te xéer nu ci wuti xam-xam bokk yi bari na lu ñuy naqari lu ñuy jàmbat lu ñuy tiisoo lu ñuy tiisoo am na ba noppi lu ñuy jàmbat mën naa am amaguñ ko lu ñuy naqarlu ak lu ñuy méebat lañu koy xañ du lenn lu dul ñàkk xam-xam bu ñu ci yóbbu rek junj nañ ko léegi jabi nekk ci adduna bi soo bëggee ñu xam la da ngay am xam-xam loolu dong nga fa yóbbu di ko jaay neex naa xam fan yu néew ci kanam mbokk yi ñu ngi séentu xew-xew bu mag yàlla ñu ci yàlla yóbbu ak jàmm te dañuy jàng ngërëmul sëriñ bi waaye bokk na ci li ci feeñ ñun dañuy jël alal ju bari yóbbu ko jënde ko ay bagages jox ñooñu xaalis ba ñoom ñu dem lu leen neex jënd ñun ñu indi bagage yi su noppee bàyyi fi mbaleet mu bari mu bare bari sax ana ñu waroon a def alal jooju ñu yóbbu luñ ci mën a amee fii rek ñu fexe ba alal ji desaat fii bagage yi desaat fii waaye takk lu bari yóbbu ko ñooñu fañ nekk faw nga soxla leen ndax dañoo am xam-xam bu ñuy jaay dañoo man dara man xam fiqhul islaam yi sax buy jàngale ak dikr wal qudra lay jëkk a wax ci lu muy sart waa ji xam ko benn te man ko xam ko ni ñu ko war a defe xam atte ba noppi mën koo def ci ay cëram foofu lay jeexale nañ bàyyi xel ne xew-xew boobu li muy yóbbu lu baree bari la te lu ci bari mën nañ koo am fii dana ko yëngu tabaski gi bu dee ak jur la ak jur fépp la ko yàlla def waaye lu tax ñun mënuñoo fexe ba am ci lu doy ba dañ koy dañu koy andil ñu jox jox ñu jur ga ñu jox leen xaalis ba ñu dem lu leen neex jënd yóbbaale lu ñuy lekk li ànd ak jur gi lu tax saa su ne dañuy xaar ñu andi ko ñu jënd ko soo waxee ñu ne la dëkk bi moom boo fi nekkee toogal rek xaalis booy indi nga wecc ko ko bu kenn indiwu xaalis nag koy wecci bañ àgg ci ak jàmm yàlla na yàlla defal dégg ak topp te xiirnu ci wuti xam-xam bu ñuy xamal saa bu ñu lañee kee yàlla la ñu xàmmee ko ak yàlla mi yàlla dëgg-dëgg saa bu nit ñëwee toll ci daraja foo xam dañ naan mooy yonent bi ab yonent la sallallahu alayhi wa sallam ab yonent mooy yonent bi ñu mën koo xàmmee saa bu nit ñëwee bëgg ñëw jommal ci sëriñ bi fekk jaar nañ ci li sëriñ bi bindal boppam loolu dara gënu ko wóor bu fi nit bàyyi ko bala ñoo laaj xaritam wala ay doomam wala kenn dañuy laaj ba xam bind na dara am déet mbind moom fu mu nekk boroom a fa nekk yàlla na nu ko yàlla déggloo yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina